fi rek ça alhamdulilah. Mhm. waaw ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi maa ngi nuyu ñëpp di sant samay waajur nuyu sama borom kër bu baax a baax a baax waaw damay xëy fajar yeewu fajar njël daal daal di jug préparé yi nga xamante ni moom laay togg defar sama petit pois sama ñebbe spaghetti macaroni defar sama mayonnaise ak yëpp daal teg bu ma defaree ba pare teg sang samay doom yóbbu leen ñu dem jàngi ma daal di ñëw lal taabal bi su ma lalee taabal bi nag fii laay toog jaay ba midi élèves yeet yooyu ñooy ñëw jënd at waa koñ bi waaw. waa xam nga nag boo jàngul yoroo ay diplôme la moindre des choses mooy nga peut-être am na yeneen liggéey yu fi nekk waaye nag daan doole rek moo ñu war ñu comme jànguma yoruma ay diplôme ma ne man naa naa naa naa créer sama entreprise bopp parce que man di entreprise laa ko tuddee

est ah waaw bien sûr xam nga góor mënta matul matale lépp gaa ñoom lu ñu am jox ñu waaye mënoo matale lépp te jigéen yàllaa ko bindee xolom moo gën a yaatu ci njabootam lu mu am rek yéene na ko njabootam loolu rek moo tax ñun jigéen ñi kenn toogatul yaa ngi ci yar bi yaa ngi defar yaa ngi defar say doom xool lu ñu lu ñu lu ñuy soxla nga bëgg ko comme ñoom seeni papa du ñu yendu ci kër yi xëj na ñu bañ nañ ko ba xale yi bu ñuy laaj duñu laaj papa yaay la ñuy laaj parce que defe nañ ne yaay moom moo yor lépp loolu rek moo waral lii ñun ñoo ñooy gérer suñuy doom gérer lépp góor mënul lépp dañuy jàppalante rek mottalante rek loolu la rek. wax dëgg yàlla nag awma ci benn problème nag waaw. man daal maa ngi gérer sama sëy nice bu ma bu ma bu ma toogee sama sëy nga ni kii lii rek la mën su ma <laughs> toogee si njaay mi tam nga ni lii rek laa mën wax dëgg yàlla aw ma ci benn problème su ma xëyee ba nekk ci samay activité terewul maay togg sama añ du ma jox jànk du ma toggal dara duma maay togg sama añ maay gérer samay njaboot affaire yooyu ki may jàppale daal yu sew sewaan yi na ma raxasal ay bool fomp ak yooyu mais li si des yëpp maa koy defaral sama bopp awma ci benn problème sérieusement te mi liggéey bi tam mi ngi may jàppale mooy faj samay soxla wax dëgg yàlla soxlaalu ma kenn dara te ñeew ma sama benn moroomu jigéen waaw. journée na boo mhm. ñun nag ji suñu suñu bopp instant yi moom mi ngi mel ne nekkul journée sax de la femme defe naa ci femme entrepreneur yi ent ñi nekk ci entreprise yi. ñoo ñoo ci gën a yëg seen bopp que ñun ñu nekk ci secteur informel bi ñun moom gis nga c'est la routine saa li ñu xëy chaque jour li ñuy def tey moom la ñu xëy moom la ñu defaat donc gisuñu ci suñu bopp xëj na ci entreprise yi ñooñu daal ñoo ci gën a gis suñu seen bopp de te nag ñun ci lañ bokk wala dëgg yàlla war nañu cee mën a boole waa état war na jug si ñun ñi nekk ci secteur informel bi jàppale ñu bu baax waa ñu ñu ñu suñu affaire gën a mën a développer parce que tamit xëj na ñoo ñoo ëpp opportunité booy seet ci journée de la femme bi voilà. Mhm. non non defuma activité su ma xëyee nii ba defar sama kii bu ma jaay ba pare damay dem taal añ su taalee añ taal di préparer pour dem ngoon gi bu ngoonee fële laay dem sama buntu kër eh, yaay toog foofu jaay sama akara ak sama fataaya ngoon gi. Euh, ba 20 yooyu ma wàcc su wàccee ñëw nag si laay kii préparé tëb comme na 21h ma tëdd wala 22h donc demain tamit incha allah ma reprendre la même chose c'est routine daal <laughs> waa incha allah maa ngi leen di xaar fee ngoon. Mm-hmm. sa journée nii nga sama journée de nii laa koy paase gis nga suba gi bu ma xëyee yeewu fajar gi julli daa dugg si waañ bi toggu ndékki li su ma toggee ndékki li ba pare génn si mbedd bi daal di jaay bu ma jaayee ba pare nag préparé yi may demee ngoon ak toggu añ beeg yooyu ba pare après préparé ngoon. ngoon gi bu ngoonee ma ñëw fii. mais est-ce que est ah. ah waaw bien sûr <laughs> sama sama doom bu ma xëyee maa ko yóbbu maa koy sang yóbbu ko mu jàngi. loolu moo tax may yeewu fajar damay yeewu fajar gi teel la def li may def yëpp su ko defee balaa moom heure am di jot fekk na ma ba pare su ma paree rek dama leen yee sang leen daal leen jox ñu ndekki. ku mag ki dem jëli bus moom dem jàngi ki ci des maa ko yóbbu ba école am mu jàngi après ma soog a ñëw lal jaay léegi su ma jaayee nag ba pare comme am naa ku may jàppale moom le temps mu dem marché ñëw ndugg bu ñëwee nag moom togg moom kenn du ma ko defal maa koy defal sama bopp ma daal di taal. ah non non man de gisuma si loo xam ne am sa soxla làmb sa poos fas ko ci saa si loolu kay jar naa liggéey ba de moo gën tàllal loxo voilà man de wax dëgg yàlla rus a rus naa tàllal loxo def lii moo ma gën a tàllal loxo moo tax ma am si sama fulaa sama fayda lii ka sama entreprise la wax dëgg yàlla sama soxla moo koy faj ñaanu ma kenn soxlaalu ma kenn dara it wax dëgg yàlla lu ma am daal ci laa ko amee ginnaaw yàlla dëgg yàlla. ah macha allah ñoo ngi sant yàlla moom dëgg yàlla soxla bu ñu am moo koy faj ñu ngi sant yàlla bu baax ñeewuñu suñu benn moroom te ba ma koy defi du léegi yàgg na lool def naa ci ay at at boobu ba léegi maa ngi si jàpp bañ naa ko ba léegi mënatuma sax liggéeyal nit. est ni ah mais nit xam nga li ñu naan bu fekkee sa jàng soriwul mënoo toog ci bureau. mënoo mu demoo tukki woo demoo fenn yaa ngi ci sa dëkk mënoo croiser les bras da ngaa war a man loolu laa lool mooy sama gëm-gëm dama ne nit lu mu am moom moo ko war a liggéey gëmuma tàllal loxo gëmuma am sama soxla wax ko nit man dama ne nit lu mu am moo ko war a ñaqal boppam bu ëllëg yi ci biir lépp lu la ci arrivé boo demee ba réussir ba yàlla dogal lépp saawan baawaan ke ñëpp dinañ xam ne mérité nga ko junuñu kii fu mu jëlee li mu am ñépp dinañ xam ne liggéey nga ba toll foofu man loolu laa gëm lu waaye am yaa ko war a liggéey gëmuma tàll loxo waaw. am na benn phénomène bu am léegi ci Sénégal ñu koy gis jigéen ñi di ko def. Mhm. moom mhm. nekk ci mbedd yi di ñaan wala ñu yor xale di yalwaan loo xale ñu ngi gisee loolu dara dalu leen. Mhm. loolu moom wax dëgg yàlla dama ko contre bañ naa ko ba nit di ku koy def man personnellement du soxor du dara mais duma la may. man dama lay conseiller pour nga dem liggéey fii jàppaade soo métier nit boo amee sa benn ñaari junni sax dem syndicat bi ut sa màngoot sa caaf ñëw teg bu ngoonee lu mu bon bon di nga am loo suturaal yaa sa njaboot mais gëmuma tàllal loxo di ñaan man ku ma ko def bokk ku ma ñëw tàllal ma loxo duma ko may bu ma amee lu may mayee dama koy def rek te yàlla tax mais su ma gisee sama moroom tol ne man war a mën a dem liggéey di def ni may def nga ñëw di di ma di tàllal loxo mu leer ma ne yow pattoo làggi dara jotu la wax dëgg yàlla du ma jël sama du ma yëkk sama alal di parce que dama naan mérité woo ko da war a liggéey comme sa morom yi nu ñuy def loolu la rek. bi. ah 8 mars bi moom wax dëgg yàlla dama ciy sargal sama yaay ndax moom jigéen bu mën góor la lekkul dara bàyyi ñu dëgg la ñi ñëpp dem nañ sëy de waaye lu mu am mel na ne ñu ñoo ko moom ba léegi day daan dooleem dem euh, fajar lay xëy dem kastoor wuti dugg ñëw teg di jaay moom it comme ñun dégg yaakaar naa ne moom moo ñu jàngal jom ñun bu ñu bu ñu demee ba xool ne xoolu ñeewuñu suñu benn moroom ci moom lañ ko gisee soxlaaluñu doomu aadama dara lu ñu am ñoo ko ñaqal suñu bopp moo ñu jàngal loolu ndax loolu ñun dañ ko màggaale même ba si suñu kër koo ci dugg am na lu muy def muy jigéen yëpp nag kenn toogul ñëpp ñi ngi góorgóorlu di ku nekk yaa ngi jéem amal sa bopp daal waaw maa ngi ciy sargal sama yaay bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla moom laa koy may 8 mars waaw di sargal sama bopp tamit <laughs> xam nga lii rek 8 mars la ñëw ngeen ma fekk ma sama jaayukaay topp ma si suba ba léegi xam nga ànd ak man wane samay activité xam nga loolu rek influencé na yeneen jigéen keneen ku toogoon war ngaa mën a jug takk sa ndigg liggéey waaw ndax ñaari loxo mooy takk tubéy mooy takk sër waaw loolu rek laa ko gisee moom lii rek sargal la ndax influencé na yeneen jigéen ndax keneen bu bu ko seetaanee di nga ko influencé pour moom tamit mu jug takk diggam liggéey te terewul la nga bëgg sol fu fu say nawle dem di nga fa dem la nga bëgg sol di nga ko sol doo dem fenn nit ñi toog nga nga euh, toog siggi nga sëgg foo dem di nga siggi ndax la nga am dalaa lew da nga ko jaarale ci yoon bi nga ko war a jaarale ba am ko waaw ma ma koy ma koy sargalee sama yaay sargale ko sama sëri ma aada Aida Fatal Maman saw nga xamante ni sama xarit la waaw. lu ci mel ni ay 8 mars nguur gi di financé. ñu jot am ay femmes ñu jot ay financement si yenn groupement est que yéen aussi tamit am ngeen message bu ngeen di lancé nguur gi ci pour bàyyi xel bi ngeen war a bàyyi xel. waaw ami loolu moom dama si kontaan ñun de wax dëgg yàlla gisuñu financement dañ koy dégg rek yenn saa yi nga gis ku ñëw jël say këyit. ne la dañ lay financé waaye dégg rek nga cee am te ñu ñi nekk ci secteur informel bi war nañu bàyyi xel bu baax ndax booy seet boo gisee nit ku nekk euh, par exemple ñu ne fonction publique la nekk opportunité yi muy am ñun amuñu ko yenn saa nga gis ñu ne par exemple terrain day jaay fii wala ay kër dañuy jaay fii mais soo demee ñoo ñi ñi nekk ci euh, fonction publique yi publique bi ñooñu la ñu gën a wóolu pour jox leen ko que ñun ñi nga xamante ne ñoo ngi ci secteur informel bi ndax garantie yi ñu lay laaj amuloo loolu xam nga jaay yi amuloo kayit boo ko wane ne bu bu bu lay formaliser ne weer bu dee temps ngay am ñoom mën nañ la ko dagg fii mais mën nañ ñu organiser de telle sorte que bu bu bu bu euh, organiser ñu de telle sorte que bu amee genre fu ñuy jaay ay terrain wala loo xamante ni euh, war nañu mën a jëriñ ñu organiser ñu ba yooyu yombalal ñu ko ba ñu am ko ndaxte ñun sonn nañ fu mu nekk nii tey jii bu ma la waxee ne soo bëggoon jënd par exemple benn terrain boo globalisé wul doo ko am te xam nga loolu jafe na ci jamono bu ñu toll nii pour nga globaliser rek ndax mënoo yor njaboot yaa ngi dégg di jug ko daanu ne dangay globaliser pour jënd kër xanaa kon fa nga nekk ca ngay deewee. xam nga nañu état bi jàppale bu baax a baax organiser ñu organiser ñu ñu nekk ci secteur informel bi ba ñu mën a am opportunité yi nga xamante ni moom la ñu nekk ci secteur euh, euh, fonction publique bi nekk comme ça lépp mën a neex ndax nag ci lañ bokk ci lañ bokk de ndax lu mu bon bon bu vote jotee dinañ jël suñu carte dem voté ji yaa ngi dégg ci dëkk bi lañu ñu bokk lu ci suñu wàll dañ ko cee war a am ba mu mat sëkk war nañ ci boole bu baax a baax a baax nag wax dëgg yàlla mu ñuy woo Macky sàll waaye woo Marème fay sàll ah woo képp koo xamante ne war nañu ndax nag mooy suñu président ñu ñëpp waa ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu jàppale ñu daal ñu ñu nekk ci secteur informel bi.